mbokk yi jullit yi ñu leen di ziyaare bu baax di wax allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain euh, kàddu yi nag du gudd lool ndax kàddu naqar la ak kàddu mettit yi ñu dégg léegi nii biñ ko déggee ak léegi sax matagut juróomi minute ci benn waay bu ñuy wax mustafa Jaxate di ab politicien bu ñu xam bu siiw Euh, dafa jéggi dayoo nag ndax kàddu yi da koo jëmale ci ki nga xam te ni mooy nurul bashariya mooy leeru mbindeef yépp di sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li olof yi wax nag ni waxkat dana wax ba làmb ginnaawam ni lii du sama bos xam naa moo ko dal ndax yonente bi de alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa kuy wax lu ñaaw di ko jëmale ci moom ah kooku nag moom jot na sëkk ñu arrêté ko ginnaaw nag bu ñu waxee lu ñaaw suñuy waajur ñu jóg bu ñu waxee lu ñaaw suñuy sëriñ ñu jóg kon nag suñu sëriñu sëriñ bu ñu waxee ci moom lu ñaaw ñu war a jóg nag yonente bi dafa waxoon ne ku gis ci yéen lu bon na ko dindi ci loxoom bu ko mënut mu dindi ko ci làmmiñam bu ko mënut mu dindi ko ci xolam ku ko dindiwu ci sa xol nag nee na pas-pas bu moom daanaka amatoo ko bu néew bu néew doole nga am waaye le fait que ñu singale ko maa ngi dégg sax benn bis ban yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam wari euh, su ko dégg franchement. ma yonent bi la alayhi wa kan moo xam ndeyam ak baayam. kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun yoon daane ci ndey bàyyam ak ak ak <laughs> bàyyi yonent bi sallallahu alayhi may wax ak moom benn mu la gën ndey ak <laughs> sama ndey ak sama ñoo gën ñoo gën ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci l'islam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ deewuñ ci l'islam hmm. c'est Sénégal ñoo wax nag graw comment un euh, xam naa ni sax jaaraat ci dana métti ndax dégg ngeen ko yéen ñëpp waaye daal waajur yonent bi yim saaga wax ni samay waajur ñoo gën waajur yonent bi alayhi salaam wax ni man faalewu waajur yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax la bu ñaaw bu jéggi dayoo boo xam tey bu fekkoon ci république islamique lañu nekk dañuy def li ñuy def ihdaar dam dañ koy def dañuy jaay deretam daan ne kii ku dajee moom na ko rey su boobaa loolu la ñuy wax ndax am na ku musa wax yonente bi salaam lu jigee loola waaye yonente bi salaam dafa waxoon ni nañ koo gis na ko rey koo gis na ko rey la waxoon euh, ba ñëw ba jéggulu waaye daal na xam ni ñun ci lislaam ñun ci lislaam dañoo mokkal maami yonente bi alayhi salaatu wasalaam maamam yépp ba ci adnaan dañ koo mokkal moo tax waykatu murtaniya bu baax ba di wax naan wa nasabul muxtaari mahfudun ila adnaana bil ijmaai inda al fudala ma in shahin aqin kamin kal xafa min kaxmin amnin maanin ila huna zukin dafa wax tari maami yonente bi yépp mu tari ko ba ca adnaan ba ca adnaan moo tax sëriñ Tuubaa sa daa wax naan euh, maaram mooy suñum adnaan nga xam di roy ci sunna soosu kon maami yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente daan daan waxaan walittu min nikaaxin laa min sifaax ci ab sëy bu dagan laa juddu waaye judduma ci njaaloo mukk judduma ci njaaloo moo tax kàddoom yii mu wax nag jëmale ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax léegi yàlla métti na lool ci xol métti na lool bi nga ko déggee suñu ronkoñ daanaka tuur ndax xol bu jeex bi ñuy jóg di wax sax daanaka tëyatuñ ko waaye li ma ci bëgg a leeral tuuti rek mooy masiiru masiiru waaliday nabi alayhi salaam maam yonent waajur yonent bi alayhi salaam yonent bi alayhi salaam anañu fu ñu nekk ndax ay jullit lañu woon wala déet wala ndax ñu ngi aljana wala ñu ngi sawara fu ñu nekk moom nag xam naa ni dafa dégg yenn wax yenn ustaas yi rek ci loolu ndax am na ku ñuy wax Omar Sall euh, di ab ustaas bu ñu xam ci Sénégal moo njëkk a taxaw wax lu mel noonu wax ni waajur yonent bi alayhi salaam ña sawara noonu la ko Omar Sall waxee ba tontu woon nañ ko ci xëy na moom mi euh, ci fikra boobu ci la ko jëlee xëy na waaye dafa xam-xam da koy jëlee fa nga xam te ne fa la amee euh, lii subuha bi li indi gàll li indi jafe-jafe bi mooy dafa am ku sa ñëw ci yonente baa ngi sa ni ko ana sama baay yonente bi ni ko sa baay ma nga sawara mu dem wan ko ginnaaw bay dem yonente bi wooluwaat ko am ñëw mu ko sa baay ak sama baay yépp na nga sawara ñu bari ko ci loolu bëgg a wax ni waajur yonente baa ngi sa ma nga sawara te wallaahi demewul noonu te wallaahi demewul noonu waaye ji deen saam nekkuñ sawara loolu nuñ koy firee xadis boobu ñu bari ci borom xam ne dañuy wax ni bàyyi dana firi maam bàyyi dana firi maam comme li yéen sa wax ne ana nabiyu la kadib ana ibnu abdul muttalib man maay doomi abdul muttalib te abdul muttalib maamam la abu taalib bàyyam bu ndaw la ñu am nañu ni moom la ci jublu am nañu ni abdul muttalib la ci jublu ndax ñoom ñaar kenn faatuwu ci ci islam ci shirk lañ faatu ci li gën a wér waaye jëmmi bàyyi yonente bi alayhi salaam nan lay nan lay nekk ab yéefar nan lay nekkee sawara te moom sax fekkee wut lislaam yàlla borom bi subhaanahu wa taala fa wax ni auzu billahi min ashaitan rajim wa ma kunna muazibina xatta nabaasa rasulan duma duma benn xeet duma duma kenn te yónniwuma ci moom ab yonente ba mu ñàkk ba dog ko duma waajur yonente bi salaam ban ci ñoom question baa ngi noonu waajur yonente bi salaam ban yonente lañ yónni ci ñoom moo tax borom xam-xam yi ku mel Cheikh Cheikh Dudo day wax ne ñoom ci fitra ci ahlul fatara lañ bokk ci ahlul fatara lañ bokk mooy ñi nga xam te nii seen jamono yonente ñëwagul woon ndax ñoom ñoo jur yonente bi alayhi salaatu salaam ñoo jur yonente bi alayhi salaatu salaam kon yonente ñëwagul woon seen jamono kon ginnaaw yonente jamono ñëwagul woon seen yonente kon kon ban yonente ñu yónni ci ñoom kon kon yàlla jurul woon yónni ci ñoom yonente te yàlla nee na ku ma yónniwu ci yow yonente duma la duma foofu la borom xam-xam yi wax mu ni Cheikh Doudou wax ni euh, ixtimaal maanaam loo xam dañ ko yaakaar rek munta munta munta dëppoo munta wuute ak loo xam te ni ñoom dafa leer ndax li leer mooy yàlla wax ni ab yonent duñ ko yónni mukk duma duma mukk kenn te yónni mu ci ma am yonent ko te leer na tamit ni waajur yonent bi saam kenn wut ci ñoom ab yonent ndax ñoom ba bañuy bañ fiy nekk fekkoon na ak yonent raafoon ci kaw suuf ba ñoom ñu feeñalaat juraat yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam mu feeñ ci ñoom kon loolu fa la borom xam ne sukkandikoo ni kon ijmaa gi maam ak nass bi dafa leeral ni kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay waajuram kenn du wax ni ay yéefar lañ ay waajuram kenn du wax ni ña nga sawar kon Moustapha Diakhaté lii mu wax te xam naa ci Omar Sall koy dégg xëy na maanaam baat la boo xam war na koo tuub mbooleem xalifa généraux yi war nañ cee war nañ cee war nañoo wax ak moom mu dellu ginnaaw ci li mu wax tuub ci bu tuubul tamit ci loolu ci saaga gi mu saaga yonente bi alayhi salaatu wasalaam na xam ni lislaam a ngi koy xaar foo xam te nii xëy na buñ fa àggee dana métti ci moom lool. Ah, am na koo xam ni de dinaa wax ci gaa yu baax yi lu bon waaye ba muy faatu Abu Hurayra rek la daan wax lu bon ku wax Abu Rayya da daan saaga Abu Hurayra wax naan amut waaye ba muy faatu da daan wax naan ah, ah, Abu Hurayra ah ah loolu la wax ba sukkuraat ba faatu. kon Moustapha Diakhaté mii day kàddu yi mu wax maa ngi waat ci yàlla mi ñu bind ni bu fekkee tuubu ko delluwaat ci ginnaaw xam ni yonente bi mooy sangu bindee fii moo gën ñëpp. na xam ni bu nee bay sukkuraat dana xam ni yàlla rek mooy yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ko yónni mu bashiran wa naziran bashiran wa naziran muy bégal nit ñi ci lu baax di leen ci ñu moytu lu bon kon nag Moustapha dellul ginnaaw ci kàddu yi nga wax politique jërub saaga yonent bi alayhi salaam défendre euh, politique jërub saaga yonent bi nit jërub saaga yonent bi alayhi salaam aji saar jërub saaga Sonko jëru saaga yonent bi alayhi salaam amul kenn ku jar saaga yonent bi alayhi salaam président Macky Sall jëru saaga yonent bi bi mooy jiitu ñëpp mooy lépp te mooy gën ji bindeef mooy gën ji bindeef Serigne Touba mi nga xam te ni mooy suñu yaakaar fii ak fañ jëm moom day jox na yonent bi ab cëram wax na mooy kan nee na mbindeef la de waaye yëmut ak mbindeef yi nee na jaamub yàlla la waaye yëmut jaamu yàlla yi ndax yàlla moo ko tànn tudde ko Moustapha tudde ko Al Muxtaar tudde ko Euh, kii gën ñëpp muy sayidul bachar yàlla ci boppam sax da ko respecté respecte ba bu koy woo du ko wooyee muhammad yàlla buy wooyante bi nabi yi la koy wooyee wala rasul saa yu ko wooyee muhammad rek daana ci teg nabi wala rasul wa maa muhammadun illa rasul qad xaala min qablihi rasul muhammadun rasulullahi saa yu ko waxut euh, rasulullahi rek wala nabiyullahi rek xamal ni su tuddee turam directement du ko sàllalu kon yow yaa ngi sàllalu ku yàlla du sàllalu yaa ngi saaga ku yàlla du saaga yaa ngi mere waajur yi koo xam te ne bañ feeñalee leer gu mag gi yàlla dafa bëcc ci leer googa leer gi ñu feeñal ñoom ñaar bi ñu ko feeñalee mbindeef yépp albashariya dañoo bëgg képp ku bon ku mel ni yow dafa jaaxle woon suux ba sawara sax sañ doon jaamu dafa jaaxle suux xëy na nag dangaa xamul kan mooy yoon waaye sax moo tax nga wax li nga wax waaye li lay interpellé.